at mu ne moom lii la ñuy dund waaw at mu ne daal lii la ñuy lii la ñuy dund moom wax dëgg yàlla parce que euh, njaay mi sax ni mu waroon demee dëgg-dëgg du du ñu demee ndaxte client yi ko jënd xale pour mu mën a ñëw fii pour jënd day bu duggee oto du wàcc fii day continuer directement feneen fu amul ndax jë jënd ko muy lu métti métti te aussi oto yi teg tamit ay gàllankoor la ñu indil ndax des fois euh, chaque jour ay soxla indi fii yoo xam ne nii kenn xamul daal doy na affaire bi nag moom des fois ñu jim ko fee ji génne dem na ci kaw condition nit ñi dem ba ñaxtu daal lan ciy jël bi yenn matukaay fekk demul ba population bi dëkk ci ginnaaw ñu gaañ fi seen xale wala dara ñu dégg ko waaw kon bi génn duñ ci jël benn matukaay moom wax dëgg yàlla waaw matukaay yi ñu gis ñu jël yëpp daal problème dafay am rek ñu doog ñu doog cee jóg di jël ay matukaay yooyu boo mun foo jaar ba jëndi moom te nga mën foo jaar ba jëndi fa moom xam nga foofu ngay dem directement mais doo fekk foo xam ne moom da fay nekk di xuus wala lu nekk mën la faa oto mën la gaañ wala dara ngay nga dafa dugg te nga mën am feneen foo xam ne da nga fa mën a jëlee ji daanaka suñu xëy suba ngoon daal daanaka luñ jaay ci téléphone daal daanaka duñ ko jaay ah. waaw wax ak autorité yi rek ñi nga xam ne moom ñoom la ñoom lañ dénk dëkk bi te tan tan féetoo woo wàll ñu jëm cee jëlee matukaay ndax fii li muy yàq moo ëpp li muy génn ndax beneen sens bi nit ñuy jaar pour di teggi tamit foofu tamit euh, dëkk bi nit ñi minunu minunu minunu ñaari voies bu ñu ñëw daanaka benn côté bi la ñu xool rek chaque jour daanaka accident am fi ba tax na daal buñ ci mënoon jël yenn matukaay defal canal boo xam ne day day day verser loolu bi daal ci ci sama gis-gis mais di ko di ko vider di ko pomper at mu ne parce que da nga xëy vider ko si guddi gi mu tawaat daanaka loolu amul benn xam ne nii day dem di verser directement ci canal mag bi moo ëpp njariñ daal yaakaar naa. jafe-jafe bu baax a baax ndax. suñu liggéey bépp daanaka dafa arrêté surtout ma rawatina fii ni muy taawe nii maam jégg na dara trop ndax boo dee xool oto yi dañuy teggi teggi bu métti daal maam bu ñu sax daal ñu jàpp lañu si daal waaw na trop comme ñu wut ay oto xama ñu jim ñu ko manxal mu jóge fi wala ñu xool beneen solution boo xamante ni dinañu si jàppale bu baax ndax parce que ñoo ngi bëgg a liggéey mais mënuñoo liggéey parce que métti na trop nag. Mhm. maa nii boo dee xool place bi oto yi fi ni aw nii xam nga xaaj bi dafa yaaxu fi doon bu ñëwee yu si bari sax dañuy teggi te tegg bi wóorul mën na yaaxu oto yi bu ne yeeg lu ne mën na see kii nawet bi sax dëgg la dina doxal suñu liggéey yenn kii mais ku ñu si jàppale daal moo gën jàppale ñu si baax a baax daal ndox mi jëlëb jóge fi fii jàngonteel fii nii si arrondissement bu Ndaam maanaam chaque année ñun ñi nga xamee ne si ñoo nekkee fii bu ñëwee nii 4 mois presque duñ liggéey dara ndox mi dañuy gêné gisoo tali bi ni mel nii te at chaque at année bu jot autorités yi danañ fi ñëw def fi descente ànd ak seen délégation mais duñ si gis benn saafara parce que boo dee xool mën na lu ma dix ans après ñun defuñu fi sax dix ans mais si li ñu gars yi wax daal boobu ba léegi nag ñun ñoo ngi siy xaar ñu ngi si mën a dimbali daal parce que bu nawet bi ñëwee moom dañu am jafe-jafe pour liggéey. daanaka demul ba jeex rek duñ mën a gis benn client nit ñi dañuy tekk di jaar waa bële sens interdit bi sax la ñuy jaar te fee tout le temps tamit day am ay sob daf yi am xam nga kenn day ñëw génn tasanteeg morom jaa ngi ñëw te gars yi duñ xamee ne ñu ngi sens interdit bi jafe-jafe yooyu daal lañ fiy jànkonteel muñ si mënoon a dimbali nag mu baax lool. yaakaar naa ne jarul sax ngeen boo ngeen gisee rek ndax boo xoolee place bi fii oto yi pour ñu jaar fii sax ruq bu sew bii nag problème la. c'est tout à fait un problème parce que da ngay gis ni ku génnee nii kenn ku génn yaa ngi comprendre donc buñ bu bu xool yi kiiwul rek. maanaam bu xool yi bu xool yi euh, àndul rek dangay gis maanaam da ngay gis ay ay ay obstacle ay choc yu kenn xamul. voilà te lii moom wax dëgg fa yàlla c'est pas salué bon d'une ville comme Touba en plus euh, ku bëgg a génn Touba fii ngay jaar booy dugg Touba fii ngay jaar. suñu liggéey moom daanaka dañuy xëy di toog rek dañuy xëy di toog rek. te lii moom daanaka doonul loo xam ne moom moom moom la liggéeykat bëgg liggéeykat bu sañoon maam chaque jour mu ngi si waar bi waaw te lii moom daanaka kéemaane la daal kéemaane la te rafetul tamit rafetul ñu am ci gis-gis ñu ne tey maam Touba te li nga xam ne maanaam route bii nii booy dugg Touba fi ngay jaar booy génn Touba fi ngay jaar donc ak ak nit ku ñu mënti am voilà buy ñëw fii lay jaar te yaakaar naa te état bi sax bu fi doon jaar maam ci ci nii lay jaar te ça fait plus de dix ans waaw autorité daal su ma maam bu dee am nañ possibilité ñu ñu ñu jàppale ci population bi parce que sonn nañ trop pa